Jili Mbay bu fas soq gàmmu Gueye maa ngi lay ziar Jili. maa lay soxla ziar sama waa yaw yow borom baax nga yow dama lay bëggee dama la yàgg a bëggee xam naa ni fi nga jëm di nga fa yàgg incha allah dara du lu tee parce que borom baax ci géew bi léegi arbitre soufflé ko gis nga soq gis nga gàmmu Gueye loo gis ci combat bi en tant que technicien. waaw combat la combat boo xamante ni yuuxu mënul jubee foo xamante ni kenn du sama gis-gis. ak gis-gisu gars yi Sokh moo ëpp volume moo pour ñoom moo ëpp doole sa Gamou Gueye boo xoolee xam ni liggéey na te boo xoolee xam ni peut-être sama gis-gis moo war gën a gaaw Sokh lamb la nag boo xamante ni ku ci xam sa morom rek sama morom daal la waaw. mën na jeex ci xeex combat bi. mu na jeex sax mën na jeex sax ci dóor mu daanu wala mbër ba bëree sonn ñu daal la. ku sonn maanaam coono. mën na nekk mun mën na si am lépp mën na si am lamb la boo xamante ni lamb ju garaaw la bu gars yi jël. favori bi rek jox ko soog. Père Bour maa ngi lay maa ngi lay fay Babacar. dama lay laaj en tant que technicien ñaari mbër yi ci géew bi Sokh ak Gamou Gueye. waaw. noo gisee combat bi. combat bu am solo la. combat wu palmarès combat xool sa carrière parce que ñoom ñaar seeni bind dafa xaw que bis bi nga xam ne moom la Gamou Gueye yor. par rapport ak tànk yi àndul te euh, Sokh il est bien bâti ndax moom bis moom na ak ak ak ay tànkam waaye dafa am nag leneen lu sew sew yu ci mooy gàmmu gi dafa dafa garaaw ci ay épercule dafa gaaw ci ay épercule te day song boo yaanaane mu daan la dem yoonam tey nag bes la boo xam ne Sokh daf cee war a boppam ndax Pikine lañ koy bëree te ay nitam yëpp a ngi fi. Gamou Gueye nag moom aussi nanguwul benn yoon tey di ñàkk combat parce dafa am lu koy jëriñ ndax dafa am dafa échec ci ci Modja kon il faut mu woon waa Tëngéej ni ko maa fi nekk te am na loo xam ne waa Tëngéej lu ñu koy waajal la loolu moo tax nag maam yaakaar ne combat bi tey ji combat bu am solo lay doon te combat bu neex lay doon. ngi leen di passé wisit Sokh ak Gamou Gueye continuer am naa technicien bu ma toogal Pape Diagne lañ koy wax Pape maa ngi lay ziar. maa ngi lay fay Babacar. yaakaar naa ci géew bi. waaw bi ma leen summeeku nañu ba pare. waaw li mooy summeeku dongalu. boo xoolee ñaari mbër ak public bi ñu andi. waaw non ki daanu dama ko yërëm Babacar. arbitre soufflé na maa ngi ñëwaat arbitre soufflé na la dimanche. 6 juin 2021 ak Thiam production gàmmu gee ngeen jàkkaar lool soqaleen wan ginnaaw ee eh, combat bu yàgg combat bu yàggu yoon coronavirus a ko teewoon ay waay coronavirus demal te bañu daaw lañ ko waroon a bëre am na at mars suba lañ koy bëre coronavirus ñëw ñu annulé lépp lu yëngu-yëngu ci réew mi waaye tay nag a ah, lii mooy yegg rek ndeysaan xulle bu yoon jeexul waaxusul di jeex soq gëdd na nuyu naa koy suivre Equivox ana Samba Kara taalibe maam Cernu borom daaru Samba Kara sama waajooju gàmmu gee ngi liwaatoog soq ndeysaan ana waa Pikine isaabu ama seen Lamine bu ama seen Ali bu ama Metso ay waa Pikine lañu seen bëre bëre muy soq waaye ana Grand Laye Ndiaye lébu bi ana Ibra bu gàmmu géey hee ñaari mbër yaa ngoon ci géew bi waaye xulle remercier naa ñëpp sant ñëpp waaye Moussa Dia Abdou Waxal Matar Sané ak lamin bilaay kontaan naa ci yéen ñoo dem ba dëkk ba ndeysaan taal oto fañ ma doon maye soxna sëdi ca tàllañ ci muy nuyu waa tàllañ ci yëpp nag waaye waa ak yaay aw ma seen fay yàlla na seen jàmm yaag sama dëkk boobu taxawaay bi rafet na waaye ñaari mbër yaa ngi lewaatoo ana Assane teg si Textile kenn du yow maa ngi lay bégee ñaari mbër yaa ngi lewaatoo Omar Taw Omar sa asalem ku ma jàppalee ngoongu maa ngi koy bëgge moom tamit lii ci si mën a ñàkk ñaari mbër yaa ngi lewaatoo man tey baaram Samba Kara ñaari mbër yaa ngi lewaatoo mbay bopp ñu naan ko mbeng mbeng bokk ca ak yaay sama rakk jooju laayi lay la laam la balaa kera ak say lunet mbeng bopp maa ngi lay bëgge di nuyu booy yëpp ñoom jib seen daawuda boob soq ak gàmmu gay soq gàmmu gay dara xewagul de gàmmu gëdd ko ee eh, soq daan na ko kat appi soq daan na ko oo oh, gàmmu gay daanu na kat appi la def da doon dóori soq fàq ko. ko bëreel soq dinañ toñ mu mel ni xule combat bi jeex na boo xoolee nag daa mel ni liñ ci doon xaar ci bëre est-ce que am na ci Lamine combat sox gàmmu gi. liñ ci doon xaar ci bëre amu ci liñ am na ñu bëri sax ñoo xamante ne dinañ am mbetteel Babacar parce que jàppoon nañ ni. soq du am sens si kanamu Gamou Gueye ñu ci bëree bëri loolu lañ jàppoon nañ ni côté bi moom moo ci ëpp sens nañ ni xeex bi moom moo ci ëpp waaye soq xel la bëree tey dafa teg bëre bi ci yoon dafa jàng Gamou Gueye te Gamou Gueye demul jàng ko waaw parce que moom dafa ñëwoon pour corriger ko bi muy bi muy tëb di ko songeñ di ko attaque ay gauche dafa ñëw pour corriger ko da koo bëggoon a duma waaw dafa humilier maanaam da koo bëggoon humilier merci beaucoup parce que gis nañ buy chaque jour noonu lay defee day noonu lay defee mais kii moo gën a diis ñi mu doon bëreel boo xool dafa dal ci ay tànkam rek rëpp waaw. maanaam kon soog diisaay bi arrangé na ko si. combat diisaay bi arrangé na ko na mu ko ci na waaw. yow xaaroon nga ko ci comme lu mel nii. déedéet xaaruma ko ci woon de wax dëgg yàlla xaaruma ko ci woon man daal xaaroon naa ne moom bu ko gàmm kay di di di daan dina ko gaañ waaye xaaroon naa ne soq bu koy daan it mën naa jaar ci wet gi takk ko fu def ni ko mu mujj a defoon daan ko waaw. soq fu mu jëm. ay mbokkam dañu jën lañ laaj xaw ma nag ba xam jën dina leen. gis nga combat boobu yow. ah. dana soq jën ah. en tant que euh, ku ne ci lamb. man su ma bokkoon ci safu jën du ma ko jël. Ah. mën naa am lu gën a kawe soq xam nga jën mën naa am lu gën a kawe soq. mais safu jën gëw ma sax ñu nangu loolu wax dëgg yàlla gëw ma ñu nangu gëw ma ko wax dëgg yàlla waaw. gàmmu léegi nu muy def. ah toog muñ defar waat xaar ay moromam. waaw na xaar général ak kii. ak Kolifay numéro deux fa le 3 juillet. waaw moo daan daanoon Kolifay. waaw mu ngi bëre ak général na xaar loolu. fa daan soq ak général ñoo bokk problème nañ nañ nañ fexe yéeg ci kaw. soq ak général bu Fass. waaw nañ fexe yéeg maanaam da ngaa gis bëree ba tey day baa rek. ba léegi foofu la ñuy bëree même adversaire yi la ñuy bëree waaw. te loolu du yóbbu mbër fu sori. déedéet fu mu tey caamit li mu def daa mel ni neex na de. toj na fi. Baba jaw tëj na fi ci am production. à part euh, Lac de Guiers de Eumeu Sène ren boo xoolee aren nationale ni mu mel tey mësu nee mel ren ci saison ren bi à par Eumeu Sène Lac de Guiers bi passé. loolu moom dëgg la moom. loolu dëgg la ñu ñaanal tamit ñeneen ñi fi organisé yëpp bu ñëwee ñu def même chose wala ñu def lu ko ëpp. ana bës. bës fay mu ngi fi. am na jabar. amagul de. bës du ngeen ci wax mu am jabar. bëgg na de. bës xamul ne kilifa la. mi ngi waaj mi ngi waaj. wala ba tey xamagul ne mi ngi waaj mi ngi waaj waxtaan na ba jubóo. waxtaan na ba jubóo. waaw yónnee rek ko dese. kon baax na kon yàlla na ko yàlla. jënd jëndal guro gi rek wala petit cola bi de. man kay bu dee guro mën naa ko koo andil jarul muy jënd. pañe pañe. bës a ngi ne de toog bës takkil jabar day live bës da ngay live di direct bës da ngay live tey fii laa koy tëjee gars yi bës a ngi nii toog réew mi am na nañ bës na takki jabar xaw ma nag lu tax waaye defe naa ne maa lay bëgg di la ziar mu mel ni komba tay bi neex na trop. maa ngi lay fay Babacar mais munoo ma tooñ ba pare di ma laaj ci combat tay bi waaw parce que début bi nga takkee ñaareel gis nañ ni na nga fuuy léegi ay koppati ngay sol di def lu la neex. sa grand laa mais daa gën a <laughs> non léegi sama père nga léegi papa laa lay wooyee. <laughs> <laughs> tey ji neex na. waaw lamb tey ji neex na trop macha allah. Uh-huh. ndax deex na trop wax dëgg yàlla lu ñu ci doon xaar ci ambiance gis nañ ko ci grand combat bi moo xaw am déception ci benn côté bu ndaw quoi parce que jël bi am na benn deux minutes gis public bi yënguwuñ sax parce que ñoom ba léegi waaw gëm dese nañ koo gëm maanaam dafa leen bett dafa yomb dafa yomb dafa yomb kenn séntuwul lii ci combat quoi mais tamit nag xam nga lii moo tax ñu naan bëri reenu ñàmbi la dëgg la Babacar yéen a ngi woon ci live am la wax ak Lutte TV waaye man maa ngi ci direct ak jox ñëpp la douze wala boog la treize ki nga xam ne nii moom moo di Jibi Ndiaye ah, Iba Mar Diop Assane Ndiaye fii ci national jamay jamaïcain ca Gambie waaye di bëggee ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di remercier waa Thiam production journée bi neex na mbër yi bëri nañ jël am na waaye combat soq gàmmu gi boo xoolee mu mel ni ira njaxaw am déception parce que da am lu ñu xalaatoon te demewut noonu moo tax lamb du lu ñuy natt lamb fu ne la mën a jeexee soq mbër la tey itam bëreem daa mel ni tey teg na ko ci aw yoon am na lu mu moytu fiir na gàmmu géey gàmmu dugg na ca fiir ga soq daan na ko parkaat appi kon félicitation soq di courage à gàmmu geey di leen jox dig daje rek beneen ak Equivox su TV waaye nag baaba kër bu Modou la ma borom Petersen gis nga lim ma jox si tubay yaa ko gis xulle ak lakos maa ngi koy bégee bu baax di ko ñaanal jàmm di nuyu ñëpp ñi may seetaan damaa coob di nuyu ñëpp ñi may seetaan waaye di nuyu ñi nga xam ne daal ñooñu na si àddina bi mais Omar Taw borom marché asalem Global Textile Assane Fall ñooñu ñëpp waaye kenn du borom Sador